asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk téléspectateur Equivox TV yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen leen wax ne nag xam naa ne namoon ngeen ma waaye yàlla xam na ne maa leen gën a nam ma li may def rek mooy bàyyi leen ngeen dem déglu seetaan li nga xam ne moom la yëglikaay yi indi tey ci altine yi tombeeg le 28 juin ñu dem déglu tey ñëwaat asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 28 juin 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglikaay yi suñu lamb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di suñu làmb nag tey xëtam mu njëkk fa mu ca xëy génn fenn la maanaam li nga xam ne amoon na ci weekend bi di ay làmb yu taratar moo xam suñu làmb la wala muy les arènes ku ci nekk daal tey ñëw nga ci sa xët wu njëkk fa ñu xëy fësal nag bokk na ci li amoon arène nationale ci samedi ji doxoon ci diggante Sa Thiès ak Moussa Ndoye li nga xam ne moo di suñu làmb ñëw na ci les arènes ñëw na ci bu dee sunu làmb la moom nee na boo bëggee dégg-dégg daal Sa Thiès ci 43 daal ca la woon sa ki nga xam ne moo di Moussa boppam daan jël moo tax Sa Thiès nag ba mu ca jógee la mu xamal waa sunu làmb daal ne na combat bii daal su ma ko ñàkk ñàkkoon moom ne na lépp mën naa arrivé parce que nag nekkoon na combat boo xam ne daa jàpp ne moom su ko ñàkkoon lu ne lu ne mën na koo dal Moussa ma mu daan nag moom aw naqaram lay wax ne na daal maanaam moom combat bi nañ ko ca traité rawatina waa CNC daal Moussa Ndoye daa jàpp ne maanaam wote taxas benn côté la te nag jàpp na ni mu mbër la te ci làmb ji la bopp bokk kon ne na moom kenn warta ñëw ci làmb ñu di ko néewal doole ndax amut lu ko saasis ëppalee ci làmb ji wala mëpp ko fiy mbokk bañ bëgg di ko fi jëw wala waa CNG jàpp ko di ko traité na leen neexe loolu nag du samay wax Moussa Ndoye ko wax ci sunu làmb daa jàpp ne daal dan koo xeex kere gënale ko ba tax bokk na ci li gën ñàkk ñàkk kombaam indi ko leneen loo xam ne nii ca bés booba la amoon doxan ci diggante Aline Sey numéro de bu waalo ak ki nga xam ne moom mooy Issa Pouy bu Caaroy mel ni ki ñoom ñaar tamit boo bëggee dégg dëgg daal seen combat yëglikaay bi ñëw na ci mel ni ki nag 40 minutes yu tegal mala boog 5 minutes yu tegal 40 secondes daal jot nañ koo bëre waaye boo bëggee dégg dëgg daal combat ba fa mu mujjee yëglikaay bi naan ci kaw Moussa Ndoye daal wala boog Issa Pouye daal moom itam kera kii di Aline Seyde bu way daka dóor mu daanu sunu làmb xëy tey dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu ba tey ci bés booba am na mbër moo xam ne bëre woon na samedi 19 juin bii nu génn daal dina fa ñëw sam faw ndëndëm muy ki nga xam ne moom moo di faraa Franc nag daal kera samedi ñëw na fa la mu xamal Sa nag moom fa des daal wax jooju ngay wax yëpp jaratu ko de bu dee pare nga daal man Franc pare na ngir jàkkaarloo ak yow keneen koo xam ne moom pare na ba jàppab combat am ci dimanche ji nu jëm muy ki nga xam ne ni moom moo di boo bëggee dégg-dégg Assane Ndiaye borom bool production mel ni ki nag daal diggante mam Balla ak Mbaye Gouye gi combat ba daal soo bëggee dégg-dégg yëglikaay bi ne nañu daal maanaam fi mu nekk ñaari mbër daa mel ni ki day pare def nanu ko yëglikaay bi ne dimanche 4 juillet bii nu jëm ci stade Iba Mar Diop fa la nuy bëree sunu làmb xëy tey wax nu ko mel ni ki nag booy kayri xëy na tey di jàngat combat ba ne na ñaari mbër yoo xam ne daal yu doy a ñooy daje moo tax yëglikaay bi wala boog booy kayre ne soo bëggee dégg-dëgg combat bu extraordinaire daal moo nuy xaar ndax ne na ñoom ñaari mbër yi boo bëggee dégg-dëgg kii day xaar ki ci des maanaam mbër la moo xam ne ab attaquant la muy mbay guy ak maam Balla booy kayre nag moo xëy tey jàngat boobu combat ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu lamb keneen koo xam ne ni tamit la 3 bala noo yegg la 4 di samedi jiinu jëm moom la mu digoon amateur yi daa mel ne mu ngocc ca Gàmbi di ko régler muy lig ni ko lay face boo xam ne bëgg na ko def mu war a dox ci diggante Modou Lo le roi des arènes ak Ama Baldé comme jéemoon nañ ko Sénégal ci plateau tele mbir ya yàqu lig daal bàyyeegul la mu bëgg daal samedi jiinu jëm moom ca Gàmbi yàlla fas yéene yóbbu ñaari mbër ya ngir nag ñu fas fa yéene jàkkaarloo moo tax yëglikaay bi ne na lig Nicolas mu nga ca mbir yooya di ko toppatoo ba tey maanaam daal mu ngay lijjanti mbir mooma leneen loo xam ne ni daal yëglikaay yi ñëw na ci wala boog keneen koo xam ne yëglikaay bi da koo xëy laaj ko ci mbir Issa Pouye muy Omes Diagne moo tax yëglikaay bi de rubrique ba nag lay di technique boo bëggee dégg daal Omes nee na Issa Pouye daal la ko waroon ci làmb maanaam lu baree bari wane na ko ne na ak champion kenn weranteetu ko waaye fi mu nekk nii daal ku toog juróom-ñetti at bëree woo ko ne na boo dikkatee ci làmb daal ne na kon ni mu waroon a bëree démb daal wala bërki démb da koo saf ne moom kay daa waroon a xaar Aline Seyde waaye ñëw ñu di ko diriger le bi te Issa Pouye Omes ne na ku ne xam na ne du ab xeexkat ne na moo tax li ko dal dal ko Omes Diagne daal nena nag lii moom bu naree continuer ci moom mu bàyyi làmb wala mu toogaat defar boppam ba jekk dóorat ñëw mooy gën a wóor lool gis-gisu omes la ba tey ci sunu làmb làmbi simple ja mel ni ki nag moom itam yëngu woon na ci weekend bi de ndax nag fa nga xam ne nii moom moo doon ca mbuur ci samedi ji Yékini moo fa wàccoon aka xaalis boo xam ne daal maanaam tegoon fa ay millions waaye général Malika daal moo mujj nangu xaalis ba ci kaw caaka fay maanaam gagné ko ci ay pénalité yëglikaay bi moo xëy tey ñëw dikk di nu wax lu mel ni ki noonu galaa ba nga xam ne tamit moo amoon ca ñaaxar te ASC Belfort defoon ko Mamadou Puy ma ngeen xam di doomi mbaaw tamit moom daal moo fa jël lañ fa tegoon yëglikaay bi ñëw na ci moom moom Mamadou Puy yëg muy liwi coor numéro 2 kenn koo xam ne nii tamit jël na ab galaa ca Foundiougne mu doon ki nga xam ne ni moom moo di Serigne Ndiaye numéro 2 Serigne numéro 2 tamit mel ni ki daal la nga xam ne moo amoon ca Foundiougne moom itam moo ko teggi teg ci ab loxoom ka nga xam ne tamit moom moo di Gaskel Jàmme taata gin tamit lañ fa tegoon te waa góor production tegoon ko daa mel ni ki ki nga xam ne nii moo di Gaskel moo ko jël waaye ba tey ci la nga xam ne ni moo di simple ja ca mbuur googa nga xam ne fa lañ duggoon léegi nu fa delluwaatee leese ba ba général Malika jëlee luur ba leese ba moom ka ko jël moom moo di gànja faama bu bitanti yëglikaay bi moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu mel ni ki nag boo bëggee dégg-dëgg daal leneen loo xam ne nii wala beneen yëglikaay boo xam ne ca la ñuy dem moom itam ci wàllum làmb kese lay bind muy les arènes yëglikaay bi ne daal Moussa boo bëggee dégg-dëgg maanaam ki nga xam ne moo di Sa da koo pièce maanaam dal daal di ko daan ci une minute trente sept secondes loolu la ñu les arènes xëy xamal xamal nu ñeen nag Sa Thiès daa mel ni daal moom la mu gis mooy teguwaat na ci ko combat wala boog ci yoonu nekk roi des arènes yëglikaay bi moom moo xëy tey di nu wax lu mel ni ki noonu jamono jooju tamit yëglikaay ba moom les arènes wan nañ ci aw photo wu leer Issa Pouye ma nga xam ne dañu koo dóor mu daanu jaaxaan yëglikaay ba nag moo xëy tey dikkal ñu ci mel ni ki noonu mel ni ki nag fa nga xam ne nii daan mu doon ci arène nationale ci les arènes moom la mu ñu fa xëy wan ci ay photo bëri na ba yegg ci lool lool lool lool yëglikaay ba yemu ca jàpp na ne tamit Gaston Mbengue ma nga xam ne moo tëggoon làmb ja ku ne xam na ne da daan liggéey ak bës pro ci wàllum seen affiche waaye nag samedi ji nu génn moom boo bëggee dëgg-dëgg gisuñu fa bës ak ak njabootam wala mook waa këram ñu seq liggéey ba ak waa Gaston production yëglikaay bi nag gëstu na ne na la ko indi daal lenn rek la ñàkk déggoo daal moo am ci diggante ñaari parti ya ca na nga xam ne ni noom la ñu war a doxale wala nañu war a liggéeye ba tax na bës daal ak bésam Gaston tamit bàyyi kook seen affiche ku nekk doxal ca sa côté yëglikaay ba moo xëy ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu waaye bu nu continuer ci les arènes mel ni ki nag géejawaay tamit daal boo bëggee dégg dëgg weekend bii moom daa mel ni seen yaram tàng jëral la def ndax démb fa nga xam ne moo doon ca stadium Iba Mar Diop ka ñëwoon moom moo di Mohamed Diop borom Jaay Mons production Mohamed Diop moo fa indi woon Youssou Ndour doomi per Balla Gaye ak bébé Julde école de Cheikh Mbaba waaye Youssou nduur daal soo bëggee dégg dëgg yëglikaay bi nee nañu daal jël ba mu daan bébé Julde rëy na ba yegg ci lool lool solo lool sunu làmb xëy na tey wala boog yëglikaay bi di les arènes ñëw na tey dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne nii yëglikaay bi ñëw na ci mu am ca bés booba mooy loo xam ne daal lu ñaaw a ñaaw la ndax nag ba defet ba amee moom yëglikaay baay wax du samay wax nee na supporter yi ba ba julli la daal maanaam dañoo mujj a mer ba fut lu di sées wala lu ñu mën a sànni wala ñu yàq ko def nañ ko ba daal soo bëggee dégg-dégg lañ fa yàq ci fa nga xam ne moom moo doon ca stade Iba Mar Diop démb ci dimanche ji bari woon na lool ginnaaw ba ñu daanee seen mbër ma nga xam ne moom moo di Bébé Diouldé buñ fa jogee nag ñoon fa nga xam ne nii moom ay sees jógu fa waaye la fa amoon moo di ab taw moo doon ca mbuur géej ka fa tëggoon nag moo di siidi Jaxate tëggoon combat boo xam ne combat bu mag a mag la doxoon ci diggante Gambien mi ngeen xam nekkoon bul faale te tey mu nekk fa nga xam ne moo di ca ngeexoox mbooloo yëglikaay bi ñëw na cay wala boog waa Equivox ñëw nañ ci ay vidéo ca combat booba mu nga xam ne moom moo nekk ca écrit Mbour te jiite ko combat boo xam ne itam boo bëggee dégg-dëgg daal neexoon na lool stade municipal lu Mbour ba feesoon del la del si di jaxate tëggoon làmb ja waaye ka nga xam ne nii daal moom moo di Gambien assurance da koo daan ci komba boo xam ne yàggul yéexul tëwul ndax nag jàppante lañ def mu taf ko plaqué waaja daal di tëdd mel ni kon daal assurance tamit mu nga continuer di wane ab boppam di wane aw yoonam mel ni ki daal démb tamit mbuur géej yëngu woon na lool wala wala sax boo bëggee dégg-dëgg moom làmb ji fi mu nekk nii moom moo yëngu ñun nag lan ca doon ñaawlu la ñuy continuer di ko ñaawlu mooy violence bi yàq gi toj gi ak damm bi loolu daal daa mel ni fi mu nekk nii waras na ko xoolaat bu baax a baax a baax a baax ndax nag ñu daan sa mbër ngay yàq defe naa ne est-ce que loolu kon tax war na wala boog kuy def jooju jëf gomis est-ce que sa mbër war naa mën a ñëw di takk ngemb di bëre ji parce que nag gomis ngemb man ma ngemb nu war a bëre arbitre soufflé faw ma daan gomis wala gomis daan ma kon damay wax supporter ne leen nañu ànd ak ak dal te dox ci fair play yi te itam nag xam ne li ñuy yàq ñoo ko moom te kuñ ci arrêté ba yóbbu la police dañ lay lijjanti waaye yow dootoo lijjanti sa bopp kon yéen a ko dégg yëglikaay yi loolu moo fa ñëw tey ah muy sunu làmb di les arènes mu mel ni kon weekend bi jaxoon na mais yaakaar naa ne dama leen di jégaluwaat di leen balu àq yaakaar naa ne su ma jumul ngeen ma gëj a gis ma def JDA lu jëm ci wàllum làmb ji mardi ba tey defe naa ne yàgg na parce que mat na une semaine parce que mardi tey ñu ngi leen di ko defe naa gëj gisante li ko waraloon nag lenn la woon rek bon yaakaar naa ne gis ngeen ni ñuy liggéeyee a ah, jàpp nañ ne ni ñuy liggéeyee yéen ñi ñuy seetaan am ngeen ci satisfaction maanaam mooy yéen a ñuy ñaax di ñu dolli di ñu bége te loolu defe naa moo tax du ñu nangoo bàyyi benn yoon chaque jour que jëfee rek ñu ngi leen di wutal ay information yu baax ci làmb di leen ko indi ci heure bi ngeen ko soxla loolu nag moo bi ñu jógee ci làmb le 19 bi ba dem nekkoon samedi bële ñu génne bi ñu demee dimanche lundi ba mardi ah comme tamit dañuy liggéey loo waaw te ñu leen di bëgg di jox li gën kilifa gi nga xam ne moom moo ñuy liggéey loo xamal ñu ne kat ah li baax nag mooy su ma soñoon nga dem récupérer tuuti noppale ko moo tax defe naa ne gëj nañ ma gis Dakar fan yi nekku moon dakaar defe naa démb lamba am na fa nga xam ne moo doon ca stadium Iba Mar Diop gisuñu ma fa am na arène nationale gisuñu ma fa yaa ngi dégg li ko waral nag mooy dañu nekkoon doon dallu rek yaakaar naa ne mbuur lañ ma dégg dem ma wax la ko waral nag lenn la rek maanaam comme yàlla dafa dogal ma nekkoon ci côté yooyu doon fa dallu ah euh, far gaa yi tamit comme yaa ngi foofu bàyyi ñu fekk la foofu ñu fekk ma fa loolu moo indi dem reportage boobu nekk Mbour waaye Mouhamed Diop ku ne xam na ne Diamans production su ma waaye la nit ku baax la yaaram la nit ku fac la ku simple la defe naa bu tëggee lam su ma soñoon la ma gënaloon mooy may ñëw mbokku ca te itam waxoon naa ko waaye gis nga rek dañu demoon tamit doon xaw a récupéré du ndax dañu sonnoon ba yëg ne vraiment actuellement coono mu ngi suñu yaram te tamit des fois na foofu ba loolu moo ko waral Sané tamit nekk promoteur bu bees ñëw ci dimanche ci tamit arène nationale moom tamit bëggoon na ñoo ñëw participer ci bésam boobu waaye lépp loolu moo ko indi di féliciter Sané moom tamit di féliciter Mohamed Diop parce que ñoom ñëpp c'est des nouveaux promoteurs di kontaan ci drapeau bi nga xam ne tudde woon nañu ko Modou Anta yaakaaraan ci arène nationale de Sané def ko di suñu frère moom tamit ñu koy ballu ci suñu ñàkk gi ñu ñàkk gis ci foofu loolu moo indi woon ñàkk gis gi Babacar ka woon dakaar waaye aussitôt tamit di jéglu waa groupe baax mu président Massamba ji ndax woon na ma wax ma daje bu ñu war a amal ngir jógaat nag groupe baax ku ne xam na ne non violence ci làmb bañ ci nekkee di ci xeex gisoon nañ ne amoon ay résultat ba jamono yooyu Alioune Sarr mi fi nekkoon ak les promoteurs ak waa police ñëpp àndoon nañu ak groupe baax di leen ñu liggéey liggéey boo xam ne taxoon na violence yu bare bare bàyyi wàññeeku si lamb mais demaat nañ ba gis benn moment que ni affaire yi mu ngi jógaat moo tax groupe baax itam kilifa yi soñu leen ci jiital Massamba Dieye pour ñu delloowaat seen ñu delloowaat mbatt ci ndaa dafa fekk ne nag groupe baax boobu maa wax di ko waxaat dañ leen war di jàppale parce que tamit ñoo xam ne lañ ay kilifa lañ ay borom kër lañ ay liggéey liggéeykat lañ yor ay famille dafa naa tamit te mag buy naan ndox mu tàng suukar saa tax bu ñu nee bàyyi seen ay yitte di bàyyi seen temps di sensibiliser xale yi di leen wax di leen yee di boole supporter yi ñuy nekk benn kii supporter Balla Gaye kii supporter Modou Lô kay supporter Tapha Tine kay supporter Boy Niang ñëpp ñuy fexe ñuy nekk benn kuréel di waxtaan ah bu supporter jotee ñu supporter de violence du am defe naa ñuy def loolu ci am réew rek war nañ leen a dooleel kon groupe baax maa ngi wax encore une fois du ma sax wax la ministre ndax la ministre toog nañoo ak moom groupe baax ay jamono toogatee ak moom Matar Ba wax yàgg na see mais dañuy wax tey le président de la république na jii a xam groupe boobu pax nekk na group boo xam ne bu am solo la ci réew mi te bëri na lu mu daan def ci làmb di ko ci indi ci ay résultat yoo xam ne après bu ñu ci jogee jàmm day am te li may wax defe naa ne ku fekkee combat yu baree bari yu fi amoon defe naa bi ne suba la Modou Lo ak euh, Lac de wara de war a bëre Demba Diop guddi googu groupe baax fa lañ fanaan di for ay xeer ngir bañ violence am fa bët set far football euh, bañ ne ginnaaw suba la xaw ma bët set football am fa ca la moor yi amee woon kon groupe baax yàgg nañoo lutter contre la non violence may jéglu président Massamba ji bu baax a baax si ñàkk gis ba moom ñàkk gis démb parce que nekku moon Dakar parce que man groupe baax ku ne la bokk parce ma xamee grâce à groupe baax la muy nuyu Massamba ji ñoom Xaadim Lamine Elimane bu Tafaati ñoom tout le monde ah Awa Diop bu Touba Marème Balla ñoom ñëpp laay xam nga Ousmane bu ma dinaa loolu lépp groupe baax ko ñi ngay gis tey ñu ñu bëri bëri ni ay produit lamb baax lañ jógee man ci laa bokk Mamadou Diouf kii rajo fa la bokk jamaïcain fa la bokk loolu moom lu am la kon ak laat bu armee moom tamit mu ngi ciy liggéey bu ama am solo laat borom marché ci leen jaaykatu or léegi nag damay ñëw ci mbirum yëglikaay yi gomis boo xoolee weekend bi taroon na parce que muy Dakar samedi suñu papa Gaston Mbengue dimanche bi Sané arène national moom tamit dimanche bi ba tey stade Iba Mar Diop ak ki nga xam ne moom moo di Mohamed Diop waaye dimanche bi tamit ca mbuur ak Sidi di ay gis nga lamb yëpp a yegg macha allah moo lay wan ne kon lamb ji actuellement li mu ngi dox liñ ciy ñaawlu di ko wax ak waxal rek mooy violence bi ñu ciy gis xëy na nag olof ne na am na ñuy gàmmo am na ñoo xam ne daa suñu déem yëkkati ci gàmmo gi waaye ñoon nag yàlla nañu yàlla dimbali ba seeni xel dellu ba ñu bàyyi raas dim te bu ñëwtee di gàmmu ñu aw leen ci sikkar sa defe naa loolu mooy lii gën a baax maanaam bu ñëwee ci samedi si wax dëgg yàlla Sa Thiès daan na ko ci combat boo xam ne ah euh, bu xoolee photo yi da xam ne combat bi yàggul parce que yëglikaay bi di suñu la moom 43 secondes la wax donte les arènes moom euh, ñaata ñaata temps la wax combat bi moom moom nee na 1 minute 37 secondes waaw loo ci mën a dégg daal xam naa ne yàggul ndax 37 43 euh, secondes nag 1 minute 37 secondes nag lépp du lu yàgg du komba bu yàgg yàggu koon xam naa ne ca menn cong ma daa mel ni fala komba combat ba jeexe di féliciter Sa Thiès ah di wax ne diggante ak Moussa Ndoye bi ñu ciy dem boo leen comparé da ngay gis ne Sa am na tuuti fa fu mu nekk favori ci kaw Moussa Ndoye loolu tamit moo tax ndam li ah bu ko amee mm, xel da koy man a nangu Moussa Ndoye dafa ñëwoon pour jël combat boo xam ne moom bu ci jóge woon tey ak victoire da koy yóbbu fu sore sore si lam parce que daa daanu ci garga kee booy ñaa mujje ko daan yaa ngi dégg kon defe naa ne te boo xoolee euh, garga daan na euh, wala booy Niang daan na garga daan na Sa Thiès kon defe naa ñoom ñaar ñi doon bëri ku ci ne fi nga nekkoon son bu doyoon waar la si yow parce que da nga jóge si défaite waroon ñëw relance waat sa carrière bëre ñu boole leen mu nekkoon ko combat bu metti mais gis nga Sa Thiès ñu koy féliciter di encourager Moussa Ndoye Moussa Sa Thiès nag ne su daanu woon leneen dina am euh, lépp mën a arrivé waaw ma parce que tamit boo daanoonum dina metti waaye damaa yaakaar ne bu keroog xanaa du tax nga bàyyi làmb te bàyyi làmb nga mën a def muy lu doy waar lu jaaxal ñi te defe naa ne en tant que Sa Thiès du defet wuru laa tax a bàyyi làmb même boo daanoon pour man da nga war a takkaat sa ngëm que xale nga li Balla Gaye sa mag def defagoo ko kon defe naa même boo daanoon waroon nga mën a liggéey waat continuer si làmb ki nga jëloon pour mu daanoon la c'est maroon na na parce que sa nawle la te mbër la muy Moussa Ndoye bu yaraax waaw kon tamit lu lu mën a xew rek ku ci daanu itam gëmal ne sportif nga te sport moo tëdde noonu nga dem liggéeyi waat Moussa Ndoye tamit nee dañ ko traité noo xam ne neexu ko rawatina waa CNC loolu nag ñun fekkuñu fa mënuñu caa sori waaye li ñu mën a xam daal mooy mbëri moom pour man ñoom ñëpp ñoo yem même pied d'égalité parce que li tax loolu mooy ku ci ne licence yi ñuy dagg kii fayeeku 100 millions ak kii fayeeku 100 000 francs ñoo yem même noom maanaam li ñuy daggee licence ci xaalis kenn doppale morom maanaam duñ ne kii bëre 100 millions licence am 1 million lay jar kii bëre 100 000 licence am 1000 francs lay jar déedéet licence ñoo yem même ñoom ñoo yem même na nag ci benn côté ci organisation bu ñëwee tey bu combat amee gomis mbër mu mag miy bëri grand combat bi li koy may mu dugal ko duñ ko may mbër mu ndaw mi et puis lépp normal parce que loo gis day am ay règles de jeu pour mbir yu a jaar yoon waaye kantaan nag nañ ko traité bu fekkente ne baaxul comme moom ni mu ko waxee am na ménage am na encadrement loolu tamit ñoom am nañ droit bind fu ñu war a bind réclamer ko parce que dama naan Sénégal ñun ñëpp ay sénégalais lañu yaa ci àddina waaye favoritisme moom buñ ko defal kenn lu dul ni moom moom daf ko mérito maanaam Gomis li muy def ci film man na ko ba ñu xam ne mën na ko ñu bëgg ko ko xañ loolu moo dut yoon maanaam nit ku ne la mu mérito nañ ko ko jox loolu moom su amee jàmm danaan ñooy man côté bu laay gisee bi ci des beneen combat bi ba tey Moussa euh, Issa ak euh, Aline Seyde boo xoolee combat bi tamit xaw na dire tuuti waaye ci kaw la mujje Issa Pouye nag bon daxaar naa ne moom tamit ah ku toog huit ans nga ñëw di bëre ak Alioune boo xam ne donte ay combat am xaw na sore mais daaw entraîné ba waroon a bëree far accident am sa làmb ja xeexoo ba combat ba yeggul kon moom dafa continuer liggéeyam kon da ngay gis ne te Alioune Seye moo gën a féete xale ba pare continuer liggéeyam kon Moussa kon euh, Issa Pouye li ko Alioune Seye 2 daane lool c'est très normal ah dëgg yàlla xëy na nag li Omes Diagne wax dëgg la mën nañ ci bàyyi xel ah. parce que Issa Pouye bi muy daan ñoom Balla Gaye di daan ñoom euh, kii Tapha Tine ak ay Yékini senior gisuñu woon ko muy xeex nekkul woon ba vrai bagarreur mais bëri piir lay def te bëri piir la man moom Issa Pouye mais xëy na nag comme Omes li mu wax parce que seetaanu ñu image yi mais Omes laay nangoo si wax ci suñu yëglekaay bi di suñu làmb ak les arènes maanaam dafa jàpp ne Issa Pouye dañ ko diriger loo ko mbaa xeex loo ko te gis na ne loolu waru a na am effectivement waroon na mën a même bàyyi tuuti Aline Seye 2 combaa bi ñu xool ñoom ñaar fu ñu jëm mais nag bu ñëwee bëgg a sam xeex ak moom te damay jàpp ne Aline Seye 2 dàq ko ci làmb man maa la ko wax yombul Alioune Seye de bu Géejawaay ku mën a xeex la et tamit ku mën a bëre la te bu pare mu féete la xale kon defe naa yooyu su amee nag mën na am moom bu la ëppee ay mën na la dóor nga daanu mooy lem ci combat te Issa Pouye wax dëgg yàlla ak lu mën a xew man de xooluma combat bi gomis waaye xam naa ne repère làmb moom daa mel ni manqué na ko loolu nag il fallait que bu fekkee dafa bëgg a bokkaat si làmb il faut mu gën a liggéey ci loolu lii nag pour man moog làmb ànda ah, day liggéey rek mbay gi màmba la Boy na nag combat la boo xam ne bu extraordinaire wax na dëgg combat bu doy waar Assane Ndiaye ko tëgg dimanche la 4 juillet combat bu doy doy waar combat la boo xam ne nii ah ku ko daan di nga dem de ndax mbay guy gi mii xale la boo xam ne li may wax rek fi mu ne sañ-sañam lay doxe ak la mu gëm te daa gëm ne mbër manu ko te itam loolu baax na ci mbër waaye nag bu mu la tax a teree de bañ a demee sam xel de ndax ki ngay bëril muy maam Balla ay xale de na leen a freiné te dem nañ bañ koy woowee borom top 5 ndax lan ay jëli extraordinaire yu muy daan ay mbër mooy ku mën a bëri waaye kon kon defe naa Assane Ndiaye itam andi na si dimanche bi ñu jëm lu neex a neex a neex neex fa nga xam ne yaakaar naa Modou Dia stadium Iba Mar ni ko laay tamit ku ne xam na ne mu ngi waajal la nga xam ne ni moo di ca Gambie yëg likaay bi ne na mu ngay waajal mook stafam ca Gambia ngir face a def diggante Modou Lo ak am ak Ama ca Gambia le 3 di samedi moom na Sa Thiès ak Moussa nee na Sa Thiès sax la wax ne na ko pare naa soo paree pare naa bu ñu fa jógee ñu dem les arènes ah, les arènes tamit lañ fay fekk ba tey mooy combat euh, musaa Ndoye ak Sa Thiès rek Issa Pouye Alioune Seye 2 mu mel ni kenn daal géejawaay soo bëggee dégg dëgg moom ah la daloon parcelle weekend ba lay passé fara hmm? bët set beleende daan <laughs> booy sin daan muy ñetti grand combat yoo xam dañ ko gagné dugal ko parcelle weekend bee ñu génn géejawaay lool moo leen dal ci weekend bi daa mel ni grand combat yi ñu amoon yëpp ñoo ko gagné ndax Alioune Seye 2 dafa daan Sa daan Youssou Ndour bu Père Balla Gaye daan même ñaa bu ndaw sax dafa daan <laughs> kon géejawaay daa mel ni fi mu nekk nii affaire yi euh, seen côté neex na loolu nag li ko waral mooy euh, ñi dëkkee côté bii tooñu ma leen de mais ñi nekk côté Dakar fee maanaam li commencé ay Fass Colobane jëm ba noonu biir Dakar nañu xoolaat seen bopp par rapport ak banlieue bi lu mel ni midi laa xam nga keroog waxoon naa ko ci mbëri ba pare mais banlieue bi tamit dañuy liggéey dañuy liggéey si làmb fi mu nekk nii te mbër nag dafa am lu mu laaj ndax ñaa bu ndaw boobu xale bu ma bàyyi xel ndax ma ko gis muy ànd ak Ibou Ndiaye Obali bokk entraînement te Ibou Ndiaye Obali ku ne gis na ne mbëri mbappade fi mu ne nii bokk na si ñi si man waaw kon Géejawaay it félicitation seen weekend bi macha la mu ci nuyu doomi Géejawaay yëpp yëpp di ci nuyu suma waaja suma soppe ba borom Iwil Zador Abdou Aziz Ale Ndiaye moom doomu Géejawaay la Père Gaston Mbengue ak bës ci paper kaay bi na na bii yoon gisuñu bës parce que ñàkk déggoo la waaw loolu mën na am parce que ku ne xam na ne Gaston day liggéey bës day liggéey ku itam booy liggéey da ngay fexe sa boîte am intérêt bu fekkee nag dañoo toog waxtaan dégguwuñ ci ay xalaat dégguwuñ ci ay gis-gis tamit ah c'est mieux vaut que ku nekk dem rek liggéeyal sa bopp parce que àddina noonu la demee olof ne lëngoo neex na waaye ko bàyyi mu dem ak i wàggam père defe naa ne lañ ko ñaanal mooy gudd fan ak wér gi yaram rek di ko di ko ñaanal bépp doomaano bés tamit ñu koy ñaanal yàlla may ko gudd fan ak wér ndax xale la boo xam ne li ma waxoon rek innovation ci làmb bés ko cee ci côté nouvelle technologie bi ndax pay per view grâce à lui mu am moo ko lig ñoo ko essayé woon ca Balla Gaye 2 Gris Bordeaux boobu maa ngi ci woon kon bës tamit am na mérite te ku ne gis na kera seen 2 ak Franc PPV ba mu ca def macha allah ak seen affiche mu koy nuyu muy suma DG bës parce que chaque jour DG laa koy wax ndax macha allah noonu la mel xol bi moo naagis muy nit ku baax a baax a baax Ibrahima Faye bës waaw di ko nuyu di ko wax di wax ne tamit Père Gasson suñu papa la ma borom xol bu rafet la donte euh, ah bu amee moom li mu gëm da koy wax waaw te addina noonu la war a deme lambi ba tey lambi dóor ji Equivox TV demoon nañu mbuur parce que naa leen dem fa la ma gaay a fekk parce que dama ne fi mënuma ñëw Dakar moom xanaa da rek bu fekkee bëgg gaay yi nag far ma fa fekk ñu assisté combat gambien ak nga moom mooy assurance ci njiital si di jaxate production maanaam boog moom moo tëggoon lamb ji tudde woon ko Cheikh Issa Sall combat ba om ministre Omar yu teewoon fa ak ñoo député boobu ñuy wax Sira Ndiaye ak autorité mbuur yépp assurance daan gambien waaw muy combat boo xam ne nii vraiment ñu ngi féliciter en séance di encourager Gambien di wax Gambien tamit ah na gën a liggéeyaat waaw waaye xam naa daal lamb ji fi mu nekk nii moom ah loo ci mën a dégg de xale yaa ngi ñëw de te xam naa ne mag mu ci xaw a taxawalu tuuti tuuti tuuti xale fa lañ lay fekk te bu ñu la fa fekkee fa lañ lay bàyyi amoon na fa combat bu extraordinaire tamit euh, Lamine Sène di rakku Selemele dem tam bëri na fa daan fa Selemele bu ngeexoox waaw loolu moom am na fa démb lit simple bi tamit bu ñëwaatee daa mel ni ci sunu lamb dañ fay delluwaat général Malick ki Yékini tegoon moo ko gañe fa nga xam ne ma doon ca mbuur ci bi lese ba gànja femme bu bitanti gis nga Serigne Ndiaye tamit de Foundiougne moom tamit gañe na la ñu tegoon Foundiougne waa ñoom di production ñoo ko tegoon ña nga xam ne te fa xam ne doon ca ñaaxar tamit waa ASC Belfort ñoo fa tegoon ab miis ka ko gañe moom mooy Mamadou Pouy waaw ñu gën ko xam ci lu turu li wi ci war numéro 2 moom nag defe naa ne mbarum écurie Fass la su ma jumule ah wala boog fa laa ko daan gis fa nga xam ne moo doon ca Tataguine tamit góor production tegoon na fa xaalis gaskel jàmme moom moo jël xaalis ba ah loolu tamit am na ba tey ak li amoon démb hmm, bébé jul tamit ah moom itam affaire am metti na waaye xale la li ma waxoon saa ci sànq rek waragoo bàyyi lam de bébé jul de lu mu metti metti liggéeyaatil teglante nga nag ay defet mais loolu mooy sport Youssou Ndour mi la daan tamit ku ne xam na ne ah jóge na ci lu métti ndax ñàkk way jur ñu ak leneen ak leneen yàlla dimbali na ko démb mu am ndam kon di ko félicité moom Youssou Ndour bu père Balla Gaye ah di ñaanal way juram yàlla na ko yàlla yërëm xare ko aljanna di ko ñaanal bépp doomu aadama mu tëdd ci suuf di wax ne tey daal loolu moo fi ñëwoon ci yëglekaay yi mais encore une fois di nuyu waa Petersen ah, di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre à travers les images waaye tamit nuyu Maysa Ndiaye premier vice président wu CNC di doomu Mbour Géej maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax Maysa Njaay ak jabaram soxnaam pël ah ak famem yëpp ak jarbaatam am na jarbaatam bu ñuy wax Aziz Ndiaye moom tamit am na programme bu mu war a amal ci Mbour ñoom ñëpp maa ngi nuyu di nuyu waa Mbour yëpp parce que la léegi dama fa xam nga daal mooy loolu waaw mooy sama mooy ah, bu ma nekku boo ma gisul Dakar gisoo ma ak yaay rek jàppal ne maa ngi ci Petite Côte ba waaw parce que nag ñoom ñoo ma fa xajal léegi dëkkoo ma waaw moo tax des fois daal mooy lool maa ngi nuyu waa Mbour yëpp mais di nuyu tamit Mansour Diop numéro 2 ñu gën euh, Omar Mbaye ñu gën ko xam ci turu Mansour Diop numéro 2 nekkoon mbër fii daan bëre léegi ku ne xam na ne chef d'entreprise la ndax mu ngi yore boulangerie Lamp Fall ca Mbour boo rombee rond ndaje tuuti rek avancé da ngay jot boulanger muy koo xam ne ah bi bëre bi xawee am na mu demee ci moom dafa dem futteku ji dem ca métier muy bécceem boulanger ba yàlla may ko tey mu yore boulanger di fay ay ay salaire ma koy ñaanal yàlla boulanger yooyu yàlla na gën a yokku di nuyu soxnaam vraiment muy koo xam ne tamit taalibi la ku am yar ku baax la di nuyu waa Mbour géej yëpp yëpp yëpp suñu grand raay ba dum ko fàtte ah euh, képp kuy doomu Mbour daal ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp maa ngi leen di nuyu waaw di nuyu le grand champion tamit Bombardier ndax moom kenn mën ta wax Mbour te tuddoo ko parce que nag moom moo fa dugal roi des arènes fois di nuyu autorités yi nekk Mbour yëpp ñoom Cheikh Issa Sall ñoom député Sira Ndiaye ñoom ñëpp maa ngi di nuyu Gomis di nuyu tamit waa Equivox di ñaanal DG bi jàmm di ko wax ne kera ah defal na ma geste boo xam ne tamit il fallait ma wax ko parce am na geste yoo xam bu ñu ko defee mu lu ndaw ndaw ndaw nekkul lu ndaw la mais noonu laa ko mën noonu laa mën a waxee parce que dina defal geste ngay ñi gis ko ne foog ne lu ndaw la mais lu rëy la waaw kon moom itam li mu def xam na ko man xam naa ko yàlla na yàlla fay la barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy ki sanc kër gi di Mamadou sekk di nuyu équipe bi fi ne yépp Aline Badara Diouf de Vox Arena hélas directeur de production Habib mi nga xam ne lépp luy jëm ci wàllum matériel yi moo koy gérer Habib Seck maa ngi koy bëgge di nuyu xulle tamit di commencé wu dem dañoo sàcc iPhone am ca Mbuur loolu tamit métti na sàcc yi ñoom itam li ma wax sànq rek ñii dañuy gàmmu ñum ñuy ras dem ay waay bàyyi leen sàcc sàcc liggéey ko gën a neex xanaa mu ne boo sàccee yëfi jaambur gomis tëdd xam nga boo tëddee bala ngaa nelaw di nga inventaire sa bopp mu leeral ni da nga koo sàcc yow bu la mais leer na milliard yi ngay lekk yow da nga koo sàcc ak lu mën a xew di nga yedd sa bopp donte nag boo xëyee mën ngaa solo ba rafet di jaagu mbaan waaye moom di nga xam ne yow moom def nga giraawaal ndax da ngaa sàcc waaye gomis boo liggéey ñaq ñu fay la 1000 francs nga dem fee jën ci sa kaasu fonde naan ko non gomis da ngay xàppi ne sa sax day ëpp kon liggéey gën sàcc sàcc amul njariñ jamono ja nga sàccee portable ab xulle ba ba nga sàccee iPhone ba jamono jooja la ko nit woo wax ko jot ko mu ne ko sama téléphone lañ sàcc mu ne ko bu subaa nga ñëw ma jox la beneen kon yow mii sàcc yow yow deel sa dëkkeel sàcc rek waaye wallaay njariñ yàlla nañ liggéey ñàkk tedd parce que nag loolu moo am solo Serigne Saliou Mbacké doon na wax ne lu dut jaamu yàlla ak liggéey aw ma ci defar aw ma ci yàq kon yaakaar naa ne ku mu mën a doon liggéey nga war a jaamu yàlla nga war a jiital teg ci liggéey parce que nag jaamu yàlla mu amoo stabilité wala mu mën a ñoŋ li koy ñoŋal mooy liggéey ndax ci liggéey ngay mën a ame li nga soxla kon yar na yàlla nañu yàlla defal jikko juy tax ñuy mën di jaamu suñu borom yàlla nañu yàlla defal jikko juy tax ñuy mën di liggéey barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam Thank you.